xam naa eh, bari na yu fi jaar ci ay bis gi mm-hmm. waaye am na sax yoo xam ne moo gën a jàmpute ci yooyu laay tàmbulee mm-hmm. balay dara ma ñëw ci li eh, yenn jéegooy daara ji ak mm-hmm. waa daara ji kuréel gi nga xam ne ñooy woote jàmm eh, indi benn charte boo xam ne non violence lañ ko tuddee rawatina élection locale yi ak liñ jëm rawatina ci woy politique yi kujje gi daa mel ne démb njiitu réew mi dalaloon na leen noo jàngate seen i jéego oustaz waaw xalaat bi de moom rafet na lool jéego ci def nii xam naa xamaguma exact li ñuy wax président lépp mm-hmm. waaye dégg naa mu ne nee na leen mm-hmm. incha allah luy def jàmm mm-hmm. danañ ci jóg ndeysaan ma defe na kon ñooñu buñ ne ko dafa bokk ci liy def jàmm mooy lu ñu may muruxu ji nañ ko may paate na ñëpp yem ci ay na ñëpp yem ci ay àq ndeysaan bu dee ci bindu pour bokk ku bindu nañ ko nanguwul mu bindu ku bëgg a jot kartam na ca jot jàmm daa tàmbali am ñi nga xam ne dañoo jàpp ne dañ leen a xañoon seen àq ci wàllu ci wàllu élection ak wote ñu delloo leen seen àq yooyu loolu dafa bokk ci li may jàmm suñu ko defee luñ ca teg rek jàmm am la te it jàpp naa ne bu ñu ko defee noonu ba nga xam ne yëpp gis nañ seen bopp mm. kuñ ne signal da nga signé dëgg la te mënees naa ñàkk signé jàmm nag te am jàmm. Mhm. waaw mënees na koo ñàkk signé ba noppi am jàmm. waaw maanaam. maanaam tey. Hmm. su ñu takkoon jabar ne benn jabar ci lay yem. Hmm. jarul muy signé monogamie. waaw mën naa bañ a signé monogamie te am yéene yem ci benn jabar. jeex na mu yem ca. waaw waaw waaw moom leneen la. <laughs> très bien <laughs> macha allah. alhamdulilah am na solo oustaz loolu day actualité la boo xamante ne mi ngi fi ndax moom itam mi ngi jéem a dalal daal donte jàmm gën. loolu la ñuy faral di wax ah. Euh, daara ji de moom wax dëgg yàlla. Hmm. jéego yooyu. ñun ñëpp a koy rafetlu. ndax nag dañoo war a bokk. dëgg la dëgg la naka jekk bokk nañ waaye actuellement dafa jot nag ñu bokk. Mhm. Mhm. dafa daara ji dafa jot bokk. daf daara ji daa jot ñu bokk. dëgg la bu ñu bindee sart yeeg ñoom seen yooyu. Mhm. ñoom nañ nekk acteurs yi. nañ nekk acteur yi. pourquoi daara ji mënut a fexe rek ba bët bu set dañ ko yóbbaale. mbaa danaan may sarax leen ma def nangam wala nangam ak te am force boo xam ne bii. sëñ Mbacke. Hmm. kenn amu ko ci penc bi. daara ji mooy Sénégal. wallaay wallaay. daara ji mooy Sénégal mooy Sénégal de ah.